jafe-jafe yi si gën a fës bari na ndax ku ne xam na ne avant ñuy ñëw fii coono bu metti lañ daj pour ñëw fii bi si bi si mooy cadre de vie yoon amul oto sax xajul si mbedd bi ñaareel bi mooy insécurité éclairage public zéro kon ñun bu fekkee dañoo nekk doomu Diamaguène Sicap Mbao ñu investir ñu war nañu mën a porter plaidoyer boobu ànd ak askan bi ñëw jéem a xam jafe-jafe yooyu parce que toog ay nomade wala toog Pikine wala toog Dalifort taxul nga xam jafe-jafe yi nga xamante ne moo nekk ci douze commune yëpp te tey bu ñuy jóg jóg bi ñuy jóg danoo jóg ngir faj jafe-jafe douze communes yi nga xamante ne muy fukk ak ñaari communes yi nekk si département bi tey ku xam département de de de Pikine xam arrondissement li koy wund woon démb ñu am ñetti arrondissement muy arrondissement des Niayes arrondissement de Thiaroye arrondissement euh, de Dagoudane jafe-jafe yëpp boo koy xool benn jafe-jafe la ñetti dañ koy mën a waaye sax mooy inondation mooy insécurité mooy mooy problème mu cadre de vie d'abord. looloo waral ñun askan bi nga xamante ni ndaw lañ juddoo si dëkk bi màggee si dëkk bi ñu xool tey li fi nekkoon démb Diamaguène Sicap Mbao gii ñu nekk tey amoon na ñaari député lan la ñu indil Diamaguène Sicap Mbao tey bu fekkee Benno Bokk Yaakaar boobu ñuy wax moom moo wuutuwaat. amul candidat Diamaguène Sicap Mbao di jéem a na conscience nit ñi di ñu gëmloo ni ñu am majorité mooy ñoom ñu continuer ki ñu jox fukki ak ci réew amoo bilan boo mën a président de population bi jox la dara yàq suñu temps la